asalaamaaleykum maa leen nuyu yéen ñëpp ku si nek sa ak sa sant di di len nuyu yéen waa actu di rafetlu seen teewaay fii donc euh, ça me fait tellement plaisir ngeen ñëw ce si ma ah, merci man nak maa ngi tudd Youssoufa Sy donc euh, ñu gën ma xam si UR 221 bon je suis un jeune artiste plasticien si je dis artiste plasticien donc euh, artiste plutôt artiste peintre. Voilà, donc euh, voilà, déjà, le le saint est fini. Youssou, bon, j'étais élève à l'école euh, Cosmo Cosmobodium. Donc euh, c'est là-bas que j'ai eu mon entraînement en sixième. Donc ensuite, je suis parti à l'école ACAPES pour continuer là-bas mes études. Donc par la suite, par passion d'art. Donc euh, je suis parti à l'école euh, des arts pour mieux performer. voilà donc euh, yu avez bi fu mu donc ñu bëri ñu ngi koy you yu bi dama amone benn copain bu buma bokal classe là-bas à l'école nationale des beaux-arts il se nomme Cheikh de passage donc dañu doon waxtaan un jour non di fo café kooku ñun xam nga rek ay artistes neen <laughs> donc mu ne ma mais yow sa tur bi dafa neex quoi Youssou ma ne ko non man maa yu ah tu vois du coup nag ma jël sama trois premières lettres tur yi ma jël ko boole si yu ah ah bi mu nekk sama passion donc 221 bi ñëpp xam ne ne mooy indicatif fu Sénégal donc ma ne pourquoi pas du ma def yu ah 221 comme ça day de me représenter sur le Sénégal nous de ah, La plupart ce qui m'inspire c'est ce sont les œuvres de Léonard de Vinci. Donc euh, il était en Italien. Donc il faisait des portraits. Donc euh, en fait loolu moma gëna inspiré wu may may def tay ay portrait ba ba ba ma am ay commande ay portrait ni voilà quoi donc euh, si sama tableau yu bëri peut-être mon naa ne moom mooy moo si inspiré ak euh, Picasso mon tamit daf may inspiré si walum peinture abstrait voilà quoi parce que mom tamit ñom ñëpp ay artistes yu mag neen donc euh, ñoñ dal ñomay inspiré ci sama ay œuvre passion la bu parce que mon année donc dem dois parce que à bas âge je dessinais bon à l'école primaire donc euh, je dessinais même euh, à mes amis les cahiers de ces certificats donc euh, des petits portraits, des dessins simples, même ici aussi à la maison. Donc euh, voilà, donc mon année, il y a la mort de Simone. mais au fur et à mesure madame, je me dis pourquoi pas je peux pas aller à l'école nationale des beaux-arts pour mieux performer voilà. Certains qui sont un peu choqués de moi parce que am ay temps ñoo xamante comme sama benn tante bo xamante ne tudu bon mom tamit dafa xawoon bëgg na trop ma dem jàng ji aar mais par la suite sama yaay bëggul won ma teel a dugg ci aar bi quoi mom avant tout les études et elle avait parfaitement raison donc euh, mais par passion d'art donc mané ne dem école des arts gëna performer sama talent

Donc, il critiquer donc euh, que ce soit artiste musicien que ce soit artiste peintre voilà quoi artiste pour nous critiquer du coup euh, mon artiste là donc je suis encore jeune donc euh, je vise loin donc pour atteindre mon objectif donc il faut me décritiquer parce que je pense que critiquer, mon mon mon l'eau

may exploité lu ma bëgg doon ko fu man <laughs> fu man yéen a gis succès quoi mais man gisuma succès voilà donc euh, mooy lu la rek je suis jeune donc euh, j'ai des projet devant moi donc euh, nu mu koy gisee mooy maanaam alhamdulilah puisque maa ngi def sama ay œuvre maa ngi jaay sama ay œuvre donc euh, je pense que ni di réagir c'est ça m'a importé je pense que loolu mon moo ma ëpp importance ak ni euh, di critiquer nga leen di déglu pour mon avancer pour mon a sa voilà nga avancer quoi mais bon alhamdulillah pour man nit dafa gëm quoi pour avancer. donc euh, je pense que man lu mu leen di conseil mooy maanaam nit su nekkee da nga nekk si benn yoon boo xamante ne sentir nga fa sa bopp donc je pense que war nga gëm sa bopp nga pour nga avancer donc parce que genre mënoo mënoo am benn bëgg-bëgg bu paree bëggoo ko maanaam parce que man lu def nii dama ko bëgg parce que su nekkee genre bëggoo ko de de réussir il faut que am loo bëgg pour nga mën réussir yàlla jàppale la donc je pense que les réseaux sociaux c'est important parce que euh, nous avons ne Picasso ay Leonardo Léonard Vinci donc nous euh, ñëpp ay reproduire seen œuvre yi daanuñu ko filmer du coup man la plupart de mes dessiner da ngay gis damay dessiner defaale sama vidéo voilà lolo tax instant bi lu bari day am genre avancement parce que réseaux sociaux yi tamit permettre nañu pour ñu mën a valoriser suñu art. je pense que euh, yombul quoi ñu ñu benn président France ñëw liker sa benn photo donc mooy lu may wax liker maanaam j'aime benn j'aime la nii mais dafa am ay personnalité yoo xamante ne genre suñu suñu suñu aimé sa photo rek cela veut dire yow am nga benn carrière boo xamante ne voilà quoi du coup mën naa ne sax du Emmanuel Macron kese bëri na si ay rakk Games Gims Hermès bon y en a d'autres Amadou Sall fils du président de la République y en a d'autres bëri na quoi bëri na mënuma lim su ma limee damay juum donc euh, voilà donc ça me fait vraiment plaisir tamit ñuy ñuy ñuy aimé sama photo wala genre sama et œuvre donc euh, je pense que loolu mon am solo puisque parce que le fait que aimé sa photo loolu daf may gën a motiver may gën a yokk sama liggéey gën a avancer xam man may kan xam fan laa war a sama tànk voilà quoi je pense que c'est plus important pour moi ñaata portée la réaliser moom mënuma la réaliser mais bëri parce que déjà mon li ngay réseaux sociaux des fois mon nga def ben affaire nga dou gars yi la ay commande le truc comme ça donc des bëri doo xam sax ñaata parce que man pour dire vrai mënatuma mënuma sax awma sax temps pour toog di de mes def sama propre collection bah comme des gens pour exposition yooyu awma amaguma awma sax temps mais

art bon c'est la c'est la création esthétique euh, d'un artiste donc euh, je pense que il faut être libre Un artiste doit être libre xam nga lu sa voilà le nekk sa xel donc euh, man des fois demain, loolu wax genre glitter painting glitter painting c'est ñu ko waxee lan maanaam l'éclat de l'art l'éclat de l'art donc euh, l'éclat de l'art bon non maanaam mooy genre mën naa jël ay produits alimentaires mën naa jël lépp loo xam c'est en poudre ma utiliser ko pour son painting comprends nga donc euh, mi ngi mel ni genre mën naa jël bi ngay wax mën naa jël këriñ genre ma jël poudre këriñ bi cendre wala cendre wala farine je sais pas et les autres quoi S'il s'agit des portraits hyper réalistes, parce que je travaille dans les portraits réalistes et hyper réalistes. Et la définition de hyper réaliste, madame, euh, cela veut dire que genre, de rendre le dessin plus beau que la photo. Donc, ce n'est que l'autre donc reproduire. Donc, y en un temps maanaam ak ben concentration voilà donc il te faut un maximum ben un mois bo xamante ding ci concentrer si pour pour rendre beau le dessin voilà donc n'est que réaliste bon mën me ma durer ben trois heures de temps mais s'il s'agit les portraits hyper réalistes mën na me deux semaines trois semaines jusqu'à un mois et il était euh, bon euh, il était un grand poète en, langue arabe. Donc, euh, il, a, représenté son pays dans la colonisation française. Donc, je pense que Jean René non et non inspiré pour reproduire Mme voilà.